yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaanin irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaanin irham jamii al waraa بعد الحسبلة وبعد البسملة wa baxdal noo ngi jéggluwaat ci yii di xew nga lépp dafa ànd ki sew-sew waxal nu ci réew mi yow lan ci yaakaar te sa dëkk bi daa bokkul ak Dakar muy Tuuba la nga ca wax ci Matlabul Fawzayni dafay maye sans détour daaree ni ñi cosaanoo Touba ak ñi texu si nan yër Matlabul Fawzi moo di solo si ku tedd ki rikk Mbàkke dimbali nu dana doye rekk waaye yërëm nu lompañ a tax sunu muñukaay di jeex waaye taxul nu bëgg naan ndox mu téex waaye bu dee Tuubaa daf nu koy jaral sëriñ Muntaqa nang nu ko bëggalal te waa état bi nga fexe ba ñu soppi te jox Tuubaa gëddaam waaw na ma ki soppi moo ci tombee rekk moo ci tombe rikk kon na soppi fu soppi jote rek dañoo war a soppi Macky bonul waaye système bi moo baaxul nde màkk sax bàyyi ko lii baaxul te lu xure màkka nag waaw day wokk mbarke ginnaaw ñoom ñaar fu ne yaa fa def barke yow ko tëdd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñii bu dul woon ak li ñu naan taalibe lañ hmm? dañ naan la nañ fi jóge kon duñu sañ a bañ waaye nag ku làqu ci yow nuñ koy def ñun mag <laughs> yi xamuñu nan lañ koy def hmm? yéen a sedd de yéen ñiy dëkk réew mi ni ñuy def Touba te mu di xolu réew mi mm-hmm. waaw ku ci ñemee dëgg waxal ndax Touba mérité woon na nii ñuy def ba booba mm. te nag lu nu def itam bu ëllëgee fa man yaamal mitqaala daratin xayran yara fa man yaamal mitqaala daratin charran yara loolu wax yàlla la mm-hmm. te noonu ñëpp ay dee nag waaw ah, te dinañu dekki waaw ñaari yee ci am waaw tukki ak bañ a tukki ñaar yee ci am tukki ak bañ a tukki waaw de moom ku mu jot ci ak foo mën a nekk rek mu fekk la fa li ma jaaxal nag ñi ne ay taalibe lañu waaw te bëgg a jiite réew mi waaw ñi ne ay taalibe lañ te bañ a jiite réew mi xanaa dañoo bañ to dañoo bañ Touba autonome <laughs> ba tax du ñu ci wax waaye jërul weraxle ndax waaw lii ma ko wax réew mi moom faw dana koy seetaat waaw nda wax na noog boroom gu wér ci ay baat waxtu lay nekk bu jotee day yomb ñeneen ñu ko bëgg a jiite du yomb waaw boroom a ngi waajal ki mu fi wóolu waaw te bu ñëwee du doon ko dee si móolu kooka Touba lay njëkk a wax ay waxam waaw ndax day ñemee dëgg fare rankoñam ay rankoñam Touba ngi jooy Touba ngi jooy te ñu bari yëguñu ko système bee koy xas te mhm. kenn yëgu ko egg nañ ci banaan ko yàgg fépp waaye léegi boroom wax ci <laughs> ba ñëpp xam yàkkamtiwun lu taaxam xam daa yàggul xam na ne waxambaane mooy naan tul yaa man yu leenu kulla tawdin shamaqa dakkan li xaar ku la jaanin basmaqa na ko ñëpp mokkal rek ba booba mooy sunu tul duñ ci yorante ay fetal waaw sunu der yi sunu der yi sunu po yi daal mm-hmm. waaw sunu po yi waaw mu ngi ni kitt kittiiral waaw mooy sunu tul du ñu ci yorante ay fetal waaw xalifa bi moom man de yërëm naa ko président Macky itam yërëm naa ko la waa penku jàppale xalifa bi waa sow yi jàppale président bi Touba d'abord jama waxoon moom laay waxaat positivement waaw te lii de mën naa koo waat kenn mënta tee la fa borom bëgg am te lu jot rekk te war a am faw mu am noo ngi yemale wax ji fii ngir yàlla ku ci seetatul yàlla seetal yàlla wasalaamu ala man ittabaal huda يا مالك الملك يا من جل أن خاد ارحم جميع الورى